bu maa lay nuyu di la siyaar. waa siyaar naa la baa jiili sama xarit. baa yaa ngi am wasaare. mbaa yaa ngi am jàmm. waaw maa jàmm baax a baax. depuis sa combat bi weesu ba léegi nga ñàkk gisuñu Bou Siteu. dafa làqatu ci ruqam lan la defet bi moo la bett daf la metti wala lan moo tax gisatuñu Bou mu làqatu. non c'est que xam nga rek am na si loo xam te ne boo si jugee rek da ngay toogaat xam nga xoolaat sa yoon quoi. Hmm. parce que dama jaaroon foo xamante ni man dama def soog quoi sama combat bi soog laa ko jàppee. soog mooy lan noo tuddee soog. waaw ah, maanaam soog la rek. Hmm. waaw noonu laa ko jàppee daal. Hmm. combat ban erreur nga def ba ñàkk sa combat. waaw erreur bi ma def rek muy xama maanaam topp xeex bi ak bëggoon éliminer. Roland Ndiago lool loolu moo loolu moo waral loolu mu gën a ñàkk combat. daa mel ni ni nga signature noonu nga ñëwee bëre. waaw loolu laa woon bëree noonu. waaw loolu moom dëgg la moom. mais lam moom li ñuy wax rek boo tànk bëree ba pare rek. doo mën a gis say erreur quoi. Hmm. waaw mais combat bi comme lu ma doon comme lu ma la waxoon si ba ñuy def kii bi rek. Hmm. moo loolu laa ñëw jafee ko si làmb ji. Hmm. waaw topp xeex bëggoon ko éliminer. moo tax ma ñàkk quoi. nga daanu mais gis naa ay kilifa ay nit yu am valeur yoo xam ne ñu ngi woon sa cimeekaay mais ñu ngi doon jooy. mu man dama xamul woon jooy bi lan la. combat bi moo metti woon. combat bi moo amoon fu mu leen toll. lan moo taxoon ñu doon jooy. waaw lu taxoon gars yi doon jooy rek muy xam nga maanaam gars yi combat dafa bet gars yu bëri. te parce que kenn yaakaaru woon ne combat bi dina de ba mii sax mosuma woon yaakaar ne combat bi dina demee noonu. Hmm. ngay bëre muy daw rek. nga dóor ko dóor yi métti muy daw génn saako yi quatre fois. waaw su ma neexoon mënoon naa zéro combat bi ba mu am ba temps bi jeex wala mu am cinquième avertissement temps bi moo la ma gagné ko noonu mais. Hmm. xam nga rek dara du xale bi a dara du géejawaay bi moo yëngu. Hmm. barke Serigne Touba ak mbooloo mi nga indi stade keroog. mun nan la la def parce que dafa mel ni bu dafa bëri waale supporter parce que mbooloo mu bëri ngay indi. waaw gis nga xam nga rek maanaam tey toll naa si géejawaay foo xamante ne ni maanaam su ma jugee rek àdduna ñoo may topp. Hmm. waaw comme lu ma lay ma mbëru koñ. waa man boru àdduna laa moo tax xam rek man waratuma di juum quoi waaw moo tax su ma jógee àdduna ñu may topp wallaahi waaw man du ma mbëru koñ quoi comme lu ma la wax maanaam mbëru waaw àdduna bi. mbëru réew waaw gis nga noonu la deman àdduna ma bëgg barke Serigne Touba fu ne la doomu aadama jógee ay Kër Massar Jaxaay Malika xam nga hmm. ay mobilisation bu am dool ba si biir jàmm gën boobu noonu rek su ma jugee àdduna mooy topp. mais lan la lan moo tax boo jugee fu nekk nit di fa jugee lan la lan la Bou séq ak ñoom ba bu jugee rek mbooloo mu bari fu nekk la nit di jugee. Mhm. di ñëw di Bou Siteu lan la. waaw muy jàmm rek. ndax parce que ñu bëri ñu jàpp ne Bou Siteu sax day soog a dugg si làmb parce que 2016 laa dugg si làmb. 2016 am lu ma liggéey ci làmb. Hmm. waaw maanaam même bu dul làmb sax am na si côté boo xamante ne sax xam nga maanaam bàyyi faale képp ku xewle fu waaye xewle ma la sama waay dama lay teewal. Mm-hmm. waaw maanaam jàmm jooju noonu tey jii ñooñu heure bu ma xëy ak xama rek dund ak doomu aadama yi loo xamante ne xama mm. waaw yaa ma gën a xam. ndeysaan loolu dafa am du lamb quoi. maa gaay maanaam lamb boolewuñu waa kay noonu la demee nag. ndeysaan parce que Serigne Touba xam actuellement nii promoteurs yi ñu ngi lay contacter. waaw Fallou Ndiaye rek mu may contacter. Mm. Fallou Ndiaye ba si men sax. ñoom ñi ngi bëgg sama combat quoi le combat Balla Gaye Gris Bordeaux bi Gaston bëgg na man Fallou Ndiaye tam bëgg na mu bëree ko quoi. Hmm. waaw mais instant problème adversaire la am. moo tax boobu ba léegi sama combat. nan nga mën a amee problème adversaire te mbër d'habitude bari dañ koy bëgg. waaw ñu bëri dañ koy bëgg mais xam rek xam nga si combat yoo xam boo si jugee rek. maanaam ñu bëri dañuy fàtte kii si dynamique yu mu jugee. Hmm. te parce que yow boo xoolee buusite boo xam te ne ma ñëw mu am nu mu demee mu ñaax xam nga am na ñu bëri ñoo xam ne lay xaw a xeeb. Hmm. te teew te xam nañ ni Bou Siteu moo leen raw si laa mënuñu ko dab. te parce que ku bëre dix combats am sept victoire am trois défaites. Hmm. waaw kon tey man maa ngi si yoon bi. yow yan ñan nga jàpp ni say adversaire lañ. Bou Siteu war naa mën a bëre ak ñoom te combat bu neex la. ñaari mbër wala ñetti mbër yoo may limal. am na am yoo xam te ne maa ngi ñoom lamb da instant yi dégg naa seen combat moo tax doo mën a sori ñu ngi ci combat quoi waaw ñu ngi ci combat. dañoo war a bëri ci le 19. am na ñu bëri war a samay adversaire ñu ngi si le 19 bi ba si waaw ak yeneen hmm. diggante agogo mi to combat la de. waaw agogo na xam nga rek sama doomu yaay da agogo xam nga mu dëkk. loolu gën <laughs> a xaw ma parcelle nga dëkk. waaw géej waay a mën a bëri. dëgg la non agogo moom ma loolu quoi mbër la mbër laa mais xam nga ñoo bokk salle de musculation. xam nga loolu du dara. mbër yàgg naa bokk ak mbër salle di di kii. combat bu neex la ba mu am lu ma ji quoi si lu rafet. man maanaam aw ma xolu di jàkkaaroo ku mel ne ay agogo yi di bëre ak ñoom. ndeysaan te parce que xam nga dund nañ ci salle bi loo xamante nii moom aw ma ngor naan damay bëre ak ñoom quoi. Hmm. adversaire yi bëri nañ fi lamb ji bëri na ay mbër de. mais hmm. gars yi rek am na ñoo xam dañuy daw di xool yomb di xool nooy. Hmm. waaw te yow xamal ne buusi si biir géew at xam nga ne mool di nga daj lu metti mais léegi actuellement jàmm gën da ngay duggaat jàmm gën dem Pikine da ngay dem parcelle fan nga jëm saa sa bët fan nga ko teg ndax ki ngay bëreel moom wala ki nga bëgg xanaa mun nga ma wax ci quartier yi ban quartier la ci dëkk. waaw tax xam nga xam nga comme fi ngay wax noonu jàmm gën ba tey am naa waaye adversaire. Hmm. waaw mooy comme lu ma la wax rek gis nga lamb yenn saa yi gars yi dañuy a daw ñii di kii di ragal. man dix combats laa bëre am sept victoire man fooyoo ma lamb de. Hmm. waaw bu sutee na mun nga ko gis ne xeeb ko nii wax mais jour bu ñu tëjee barrière di nga daj lu métti barke Serigne Touba a fi ngay wax noonu am naa fa adversaire. kan la. waaw am na booy yu fa nekk mais xam nga am na booy yoo xam dara xam nga rek tey jii aj nañ leen si làmb te xam nga doo toog fii di xaar kuñ aj. non mais munoo bëre liis mu daan la nga soxla Laurent wala nga bëre Laurent mu daan la nga soxla liis. mais loolu loolu loolu loolu du dara xanaa nekkuñu ay mbër rek làmb la rek. mais booy du ma du ma leen laaj déglu ma la boo compté samay victoire compté seen victoire ñi ma lay wax nii ëppale wuñ ma victoire. man képp ku si ciy bëreel da nga àdduna dañ lay xam waaw te parce que Bou Siteu moom bu may wax sax dama naan Bou Siteu international diaspora bi fépp gaa yëpp dañuy yàqamte sama combat di xaar sama combat. Mhm. wallaahi. am na solo maa lay jaajëfal a baax di kontaan si yow bu baax daa am sax lu ma la fàtte woon wax waaw loo xam te ni tey jii maa ngi soo ko toog si émission di ko wax hmm. muy temps yi léegi Lat Diop bu Bou Siteu laa tudd Lat Diop Lat Diop <laughs> bu Lat waaw Bou bu Lat Diop temps yi Lat Diop laa tudd man Lat Diop xaw mooy sax borom tamit parcelle laa mooy yóbbu la mooy directeur LONASE man parcelle laa dëkk waaw parcelle nga dëkk mais da nga war a Ah. koo xam directeur LONASE xam nga rek daf ma dama ñëw. man de dama koy dégg rek laaj jóg bu baax mi laaj bi daf ma recevoir xam nga ma ñëw ñu toog di waxtaan mu ne bu kañ laa am turandoo si làmb ji ma ne ko bis ni ko tey nag tuddee naa la sam bopp kon léegi bu kenn waxati. Bou Siteu waaw même booy dugal sax jaru ngay bind Bou Siteu. ndax Lat Diop boo bindul Lat Diop moom nit ñi sax moo la kii. Ah. dafa ne ko loolu képp kuy bëgg Bou Siteu rek yënga léegi am na beneen tur si làmb. muy Lat Diop muy Lat joob Lat Diop moom laa. te moom ngay indi sa yeneen ko moom laay waaye yow déglu ma la. loolu de maa koy jëkk ñëw ak yeneen façon yu bees. waa waaw man dama pare pour am feneen fu ma génnaat ci làmb Mm-hmm. waaw di nuyu tamit maab sa moom ma fayam gis nga saalu ba ma fay entraînement ba sama combat maak Malick Ndiaye ba léegi mm. musuma fa ñëw mu ne ma lii ngay fay wala dara moom moo ma jël bëggal ma boppam quoi. ndeysaan may entraîné si saal bi gis nga saal mu demee. Mm. kon tey ko bu xewlee rek mënuñu lan lu dul bàyyi luñ jàppoon yëpp ñëw. Mm. mu may woo léegi naa ma Daouda Mbow mu ngi noonu di ñëw si ginnaaw. international Daouda Mbow ancien joueur Marseille di ko nuyu bu baax. Mm. di nuyu jàpp kii Zara tamit. jabaru Cheikh Kouyaté maa ngi koy nuy bu baax nuy waa Almadi gaa yëpp. Hmm. waaw ma bilaa di kontaan si yow nag. Hmm. combat sama combat gis naa li si daj. ndeysaan da ngay bàyyi sa lépp ñëw ba parcelle fekk si ma saal bi jël ma. xam nga lu ma xewle open press. kon yow baa jël yow ma sa fay. di la wax ne nag temps nag yaa téye TikTok bi. maa lay gis yaa ngi toj TikTok bi di bëggee tamit Fall suma doom yaay ak Moussa Kalaamu xam nga. Euh. sunu grand bi nga xam ne nit ku baax la géejawaay la dëkk. nii nañ toog di waxtaan rek ndaka dañoo bokk benn koñ bi ñu dëkk. nekk nit ku baax doom la ñuy tudd tey. barke Serigne Touba Mbacke di bëggee gaa dëgg la ah di bëggee waa diaspora bu baax a baax a baax jërëjëf Bou Siteu maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax